xam nga waa ji lu ko dal. Ah. jabaram daa tollu diggante maanaam dafa ëmb. Mm-hmm. tànk yi di newi. Mm-hmm. mu dem hôpital ñu bindal ko benn garab. Mm-hmm. mu dem pharmacie ñu jaay ko garab bi. garab biñ ko bindal. waaw garab bi ko docteur bi bindal. dañ ko jaay. waaw waaw ma waaw mu dem yëf yi gën a takkarnaase. waaw mu delluwaat hôpital. ci sage femme bi. mu ne ko ma xool garab yi mu jox ko mu ne ko lii lañ la jaay waaj na ko waaw maa ko jënd mu ne ko yow liñ la jaay ak li ma bind du benn. Hmm. déglul waa ji bisimilah. mbir mu ma jaaxal la boo xamante ne nii tey jii tey tey la ma dal muy que ni suñu pharmacien yi ah war nañoo leen xoolaat bu baax xooli seen compétence ak diplôme yi yor ndax mérite nañ ko ou pas wala seen capacité yegg na fa parce que tey ci ci matinal bi nii sama jabar dafa nekk en état de grossesse sama soxna maanaam ñu am ay garab yuñ ko bindaloon te it moment bu mu liñ ko koy bindal fekk na moom sori na ba nga xamante ne ni mi ngi dugg ci biir wéram léegi tànkam dafa neewi quoi léegi ci lañ jënd bind ko benn ordonnance ay comprimé yoo xamante ni pour pour mooy wàcce tànk yeeg ak yu demee noonu ak yeneen yeneen yeneen garab mais bi ma demee ci pharmacie bi man maa dem tey ci pharmacie bi jëndal ko sama bopp bi ma demee bi jaay ma def yépp expliqué ma ni mu ko war a jëlee mais yàlla suturaal na ma it ci mbir mi parce que it euh, moom tantam sage-femme la moo nekk ci hôpital bi. léegi bi ñu defee noonu ci la ñu tantam woo comme ça pour mu ñëw fa pour mu vérifier tànk yi laan moo tax mu mel noonu ak affaire extra mu yëf ma ne ko ginnaaw ba fa hôpital nga jëm. bon léegi da ngay yóbbuwaale garab yi comme ça moom mu gën la expliquer naka nga koy naanee mais Mouhamed li ma ci gën a yéem mooy ba mu demee ci moom yóbbuwaale garab yi femme bi dañu ko carrément foo jëndee garab yi mu ne ko mu joxoo kii bi ne ko ma ne ñu ne ko pharmacie ko jëndee li ci gën a yéeme daf ko xool ni ko kii lim la jaay ak li ñu bind bokkul. imagine toi tey imagine tey jii bu nekkee ni pharmacien yi ñoom ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo mën a lire li docteur yi di bind parce que man mënu ko lire keneen ak keneen bari na ñoo xam ne mënuñu lire loolu ñoom seen biir ko ñu def métier rek ñoo ko mën a ba ñu leen di jox ordonnance. ñu ñuy jaay loo xamante ne nii bokkul ak li nga xamante ne nii moo ne ci ordonnance bi mais loolu yan conséquence la war a indi ak tey bu ko soxna si naanoon tey lan la ko war a mën a jural muy mbir mu doy war te lii dafa dafa yéeme dafa yéeme te xam naa ni ni ma ci nekkee victime bëri na ñoo xamante ni tey loolu dal na leen mais heureusement man moom soxna si jotu ko utiliser parce que bi mu demee ci tàndam daf ko xamal ko carrément ni ko li nga li nga bind liñ la bindoolu si ordonnance bi ak yi lim la jaay bokkut parce que def suñu wax dafa waxoon daf koy attaqué te man mit duma ko bàyyi noonu parce que dina dinaa ci def ay démarches ba xam pourquoi lan moo tax mu mu bind loolu ak lan moo tax it liñ def si ordonnance moom jaay ñu ko mu ñuy jaay leneen fan la ko teg dafa amul compétence bi wala lan la